nataal fanweer ak juróom bu fekkee ci gaayi kirist yi nga bokk yow bokk nga ci askanu yàlla muy njabootam te lu am solo la ngay wër ñi bokk ci gaayi kirist yi pour nekk ak ñoom ak ñoom ngay déglu kàddu yàlla bi te di déggal boroom bi ci lépp ngay ñaanandoog ñoom boroom bi yeesu te di ngeen di gis barkeel yu bare ngeen di asante seen biir te di wey ci dox ci tànki kirist yéesu mu ngi seen biir yéen ñi daje ci turam bu fekkee sax ñaar ngeen walla ñett dong bu fekkee gaay kirist yi booloo nañu war nañu fàttaliku bu baax deewu kirist dañ ko war a bëgg te di ko woy ñoom ñépp